wonde ɗiɓiɓe sulaye ɗo yeyi kuwat cheikhuna mujjam moɗi naare diiru dafay lamuy noyi day wat ma day so diire ɗu jek suɗe reeɗu kek suɗe warɗi daan suɗe salli moy so fiine ɗu taw so tawo ɗu ñorle so ñorle ɗu woble si yakaari mbay huɗe ɗum aɗa na lay tarjumay ci xaajada yi si maalik nee na ونن لي قد الوجود العيلمي شيخنا تجان شيخي أبي العباس بحر حكمه بد كل أولياء الله من فيدي قرا فيا الله بصاحبك محمد قد خصنا

Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum wóolu ko moom la ko àddina yëpp wóoloo gis ngeen ko nii mu tooge ak li sama jarbaat bii sama doom ji Abdoul Aziz wax loolu la ñëpp xalaat ci moom Asi Malick nu jox la kàddu bi di la ñaanal pour toll yàlla may la gudd fan yàlla may la wér am naa la sama baay waxoon sa moom rek lan lay wax ñu ko Sidi Boubacar fii nga aw képp ku fi awoon ku dul yow Babacar taqaban waaye yow itam dañ fi aw ku fi awoon taqaban asimaali njóogu faama yàlla yàlla may gudd fa yàlla yàlla may wér ñépp gi lay déglu lii xam nga ne de Malick Fall woote na wax naa ci télévision wax ci rajo waaye ba nee nag bëgg naa ñëpp fekk si ma nag grande mosquée ci la ñëpp ñëw te nag mbedd mi ba nu koy tuddee sa maam Cheikh Sidi El Hadj Malick booba on n'avait pas interne on n'avait pas l'indépendance mais les Français avaient décidé de mettre cette rue-là avenue Cheikh Sidi El Hadj Malick vous la parole si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 ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وسائر خلفائه ومن تبعهم bi ixsaanin ila yowmi diin maali wasir al awqaaf wa shu'uun al islaamiya axaana xabibana docteur Ahmed Tawfiq wal wafd al muraafiq li maalikum ممثلين لصاحب الجلالة والمجادة محمد السادس ملك المملكة المغربية الشريفة صاحب المعالي سيد الوزير محمد المنصوصي والسادة الوزراء المرافقين لمعاليكم ممثلين لفخامة رئيس سيد مكي سال الإخوة الأفاضل أعضاء الوفد الغامبي الشقيق سعادة السفير المغرب في السنغال أصحاب سعادة السفراء المحترمين سيادة مدير المعهد الإسلامي بدكار فضيلة الإمام الأكبر بجامع دكار أصحاب السماحة الإخوة الأماجد ممثلي المراكز التجارية في السنغال أصحاب السماحة الإخوة الأكارم ممثلي الطرق الصوفية والجمعيات الإسلامية سيدات العزيزات عزيزات الصالحات القانتات الصفوة من الشباب المسلم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجتاحنا فرحة عارمة وتستولي على قلوبنا نشوة بالغة ونحن نتشرف باللقاء بكم في هذه الرحاب الطاهرة لنتدارس ونتذاكر معكم مبادئ طريقتنا التجانية الغراء tariqati shukri wa rida tariqati alilmi wal amal tariqati aliltizami wal istiqama tariqati saayi daub waraa mardati llahi rabbil alamin inna liqaana alyawma li ihyaa'i haadihi al ayyaami ath-thaqaafiyyati at-tijaaniyya la sunnatul xamida tuadd bi kulli lmaqayisi min lataifi lminani lilahiya wa munasabatun saida نغتنمها كأفضل ما يكون الاغتنام للتعبير عن امتناننا الكبير وشكرنا العميق وتقديرنا الفائق لصاحب الجلال أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين محمد السادس حفظه الله ورعاه الذي يتفضل علينا مشكورا بأن تتم هذه الأيام المباركة تحت رعاية سامية ولا غرب فالطريقة التجارية لقيت منذ fajri nachatiha min muluki dawlati alawiya wiayatan wa inayatan faiqatayn ibtidaan min ahdi sultan mawla suleyman alladi ahaata muassisaha mawlana ahmad attijani bi ajwaai tarxibi wa tabjili wal ixtifai وصار على منواله المرحوم الملك المنعم الحسن الثاني الذي سعى سعيا مرضيا لترسيخ دعائمها من خلال ندوات ولقاءات عدة نظمت في عهده المباركة وكان أحد الخلف الصالح لخير سلف محمد السادس عصرا ذهبيا للطريقة التجانية وتصوف الإسلامي نسبة للجهود المبذولة والمواقف التاريخية لجلالته في الرعاية والعناية جريا وراء خطى أسلافه المنعمين جزاهم الله خيراً ولا أدل على مبلغ هذه الرعاية من حضور الوفد المغربي وعلى مستوى تمثيلي رفيع كعادته في هذا الموسم الثقافي الصوفي التجاني فلجلالته من الأمة الإسلامية بصفة عامة ومن مدارس التصوف الإسلامي بصفة خاصة wa min altariqati almuhammadiyati alahmadiyati altijaniya bi wajhin axassa xaalisu shukri wa jamilu althanaai wa nadcu lahu min allahi alali aljalil alajra aljazila معالي الوزير القافي المحترم الإخوة الأكارم يشهد العالم اليوم تموجات وانحرافات أدت بعواقبها إلى مشاكل وفتن واضطرابات الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تضافر جهود ومساعي مشايخ الطريقة وعلمائها وأحبابها في العمل الجاد والدؤوب من أجل إعادة التربية الصحيحة الجامعة بين العلم والعبادة والسلوك likay tusbixa sulukiyaatu wal aqwaalu wal afaalu wa tasarrufaatu wal infialaatu munsajimatan maa almacaani ruuxiyati saamiya wal qiyami alaxlaaqiyati nabila alaaliya allati tafaxaru biha tariqatuna xata naxmiya bi tilka tarbiyati rachida shabaabana min maxaatiri alwuquuci في فخ التيارات المتشددة والمتطرفة التي تعيث آنا فسادا وتخريبا في الأرض على طول العالم الإسلامي مكانا لزاما على المسؤولين من الزعماء والشيوخ من باب الاستشعار المسؤولية واستباقا للأحداث القادمة وقياما بواجب الرعاية والصيانة والحماية المادية والمعنوية لتراثنا الغالي أن يعدوا العدة فكريا وتنظيميا واجتماعيا ويتخذوا من الإجراءات ما هو كفيل لدرء المخاطر المحدقة بالتصوف الإسلامي هذه المخاطر التي تجسدها إما تنظيمات غير إسلامية محاربة أو تنظيمات إسلامية معادية تحمل وتبث فكرا تكفيريا يفرق شمل الأمة ويضعف تماسك المجتمعات ويشل قواها ويعمل على إحماض جذوة التصوف الإسلامي وإننا من هذا المنبر ندعو باسم الخليفة العام شيخ أحمد تيجانسي إلى مزيد من التلاقح الفكري وتلاحم الجسدي والوحدة وتآخي وتضامن في الله بالله لله لتحقيق لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة بين الجميع وفي الختام باسم الخليفة العام للطائفة التجانية واسم خلفاء المراكز التجانية في السنغال وباسم الهيئة التنسيقية للدوائر التجانية نعبر مجددا عن عن أسمى معاني الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعمه المادي والمعنوي لهذه التظاهرات الإسلامية التجانية فجزاه الله عن الإسلام خيرا كما نتقدم بجزيل الشكر إلى فخامة رئيس الحاج ماكي سال على مساندته لنا لإنجاح هذه الأيام المباركة وشكرنا موصول لأشقائنا الغامبيين ونخصص الشكر كذلك لكافة المراكز التجارية في السنغال والشكر مقدم سلفا وأخيرا لكل من حضر وشارك وساهم في نجاح هذه المناسبة بأي شكل من الأشكال وكل عام وأنتم بألف ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته xam naa ñu war a fal ko tuuti rek ndax xëy na am na ñu bari ñu dégg li ñuy wax bil arabiyati waaye am na ñu ko déggul ah, wax ji nag paasiwul rek wax d'abord suñu teewaay ci ndigalu xalifa bi ci Ahmed Tidiane ci bés bi nga xam ni dañu ko tuddee njiit lu tedd di kilifa ci ñun ñëpp di caatu Seydil Hadji Malick di alaaji Habib Sy nga xam ni xam naa ko bu baax ndax nekkoon naa ak moom di ko tarbiyewu ma ànd ak suma baay ñëw dakaar mu yebal ma ca moom ni ma demal nekk ak moom ma nekk ak moom tarbiyewu naa ko ay juróom-ñeenti weer di fanaan ak moom ci benn néeg ci benn lal kooku kon xam naa ko mu di ma yónni may dem di dikk di ko rendre compte mu nekkoon sëriñ boo xam ni mësul sukkandiku ci taalibi ci ñaq boppam rek la daan sukkandiku di liggéey comme tout le monde am indépendance bi mu am ci biir xadara kër gi bi ñu ñëw itam mi ngi ñu boole woon ak njabootu xadara bi ñu ànd leen ngeen dem wéttali waa coordination bi bokk na ca Cheikh Ahmed Tidiane Sy Mansour mi ngi ñuy toog ñoo ànd jóge ca xadara ba moo fay suma wéttali itam nag lu ma mënul dox moom lay wax ñu ko demal nga doxi ko moom laa àndal ak alxaaji Malick Cissé jinge ak ñi mu àndal ak mu Safir Mouhamadul Mansour Diop Koungheul ak mbooloo ci muqaddam yi nekk ci xadara ba ak ulama ya fa nekk wal ahbaab mu ni woon si ngeen demee ngeen fekk fa Dabbaax Abdul Aziz moom mi bàyyi moom bés bi ñu nuyu nag suñu mbokk mu baax mi toog di maali docteur Mouhammad Tawfiq bi nga xam ni moo di wazirul awqaaf wa shuuni l islaamia bil mamlakati Sa Majesté le roi Mohammed VI yabal ko ci bés bu rëy bii ci ñun ndax bésu Cheikh Ahmed Tidiane yi la te bésu Cheikh Ahmed Tidiane yi dafay rëy mu ànd ak délégation bu mag ñu ñëw teewal fi Sa Majesté mi nga xam ni depuis quarante ans mi ngiy jàppale suñu coordination bi coordination boo xam ni alxaaji abdul aziz radiallahu anhu moo ci joxe ndigal moo cerno muntaga ahmadu ni àndal ak ñoom di leen surveiller ma ànd ak ñoom comme ni ko alxaaji malik fall waxee bu bés bi jotee ma ñëw taxawu leen loolu rek la am ci daje bi kat waaye leneen toppatoowuma ko xaw ma lu ñuy am xaw ma nuñ koy defe xaw ma fu ñu koy jële sama yoon nekku ci xanaa lu ma am indaale ko jox leen lu ma jële ci famille bi boole ci indi jox leen ba tey jii ci mujj Euh, ñu wax ko ni ko nu ngi koy raxib nu raxibu bihi ma al wafdil murafiq li euh, ci ñëw gi mu ñëw waaye itam ci sa majesté le roi Mohammed VI kër Ahmed Tijani gi ñu tudd woon Daarul mu doon pale bu cheikh dëkkoon ba fa la ko yàlla moomee mu jël ko defaraat ko ba mu mel na ajjana mu delloo ko njabootu Cheikh Ahmed Tijani bi ñu fa demee il y a six ci la leen ko delloo ci suñu kanam euh, taalibe yëpp bëgge ko muy kër goo xam ni maamam Mawlaay Suleymaan moo ko joxoon Cheikh Ahmed Tijani ni ko yow ci pale nga war dëkk mais waroo dëkk ci kër jox ko ko cheikh nangul ko ko te cheikh masul nangu lu jóge ci buur ñëw ci moom waaye nangul na ko ko dëkk fa ba mu fa jógee njabootam euh, jógee Maroc kër ga yàgg yàqu ñu dem fa daaw jéeg mu ni danaa leen bégale danaa defaraat kër gi ba mu mel na ko sama maam joxewoon woon ma joxaat ko njabootu Cheikh Ahmed Tidiane liggéey na ko ba mu àgg mu delloo leen ko ni leen kuy xalifa rekk na fi toog su demee beneen xalifa bu ñëw méngoo kër gi loolu nag tijaan yépp ameel nañ ko ci njukkal moom Mouhamad Siis Malikul Maghribi e, ci jëf ju rëy jooju mu def ba ñu fa demee y a six mois dafa benn congrès tijaan e, soixante pays daje na fa ba Malaisie ba Indonésie ay tiijaan jóge na fa ñëw teewe congrès boobu ñu waxtaane suñu tiijaan gi waxtaane ko ndax itam yenn eh, yéen tëdd fii di nelaw waaye ñun ñi bokk ci turu suufee yi suñu tëddee duñu nelaw ndax seen noon yi yi nga xam ni dañ leen a préparé pour que rek ñu jóg yàq ko ñu jóg yàq ko ñu ngi jéem ñu ngi fexe wa yamkuruuna wa yamkuru llahu wallahu xayrul makirin su ko defee kon ñu bàyyiwaat xel ñu xel li nu bokk ñun ñëpp muy ak tijaaniya bés bii yabal dem nañu seeti képp ku bokk ci tariqa bi almarakis tijaaniya ñu ngi koy jëkki ca Cheikh Ahmed Tijaani Ñas bu cheikh al islaam alxaji ibrahima Ñas nekk xalifaam ñoo daje woon ca kongre ba ca Maroc waxtaan fa suñu waxtaanu bopp bu bokkul ak congrès ba benn guddi goo xam ni toog nañu ba quatre heures du matin surtout Cheikh Ahmed Tidiane jiite waxtaan wa ñu waxtaane fa lu bari ci senegal bi ñuy laate taxawal bés bi dañu daan ànd ak suñu mbokk mu baax ma mu di Ibrahima Mahmoud Diop depuis trente ans ñu ngi ànd di teew marok at mu jot ci daje tijaan bu fay am ñu ñàkk ko mu di perte bu rëy ci biir tariqatu tijaaniya ñu ñaanoon itam Cheikh Ahmed Tijani ni ko place bii nga xam ni ñun ñëpp ko bokk ndax lii du tiijaanu Tiwaawan rek mais tiijaanu Sénégal yëpp ñoo ko bokk waa kër Cheikh Oumar nga nële sëñ Makki Taal ma daani yebal ko fu këru tijaan nekk dem nañ fa wax la bés bii nañ fa bokk daje te bu ñu fi jógee dañu def lu mel ne la def ca Maroc waxtaanewaat li nu bokk ak ban taxawaay lañ ci war a taxaw ak nan lañ ko war a aaree ba loxo yàq du ca joti mën nu ko mag lu ko yàq waaye rek jamono laaj loolu su ko defee ñu ziar ñi fi teew ñëpp suñu mbokk cheikhul alama abdul malim zeyn xalifa ahlul bayt wa man maahu min إخواننا اللبنانيين ونذكر واحدا منهم وهو أخونا وحبيبنا محمد بارك سي ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu Cheikh Yane Thiam di nuyu grand serigne Dakar ak mbooloo mi mu àndal di nuyu El Hadj Madoun Thiam di kenn ci ñi sopp ci Ahmed Tidiane yi tey liggéey ci waaw nuyu itam euh, famille yu diine yi fi teew yépp bàyyiwuñu kenn mais ñu yeesal cant ci buuru Maroc at mu day jël avion spécial désigné délégation bu am solo jox ko ministre bi di Mouhamed Tawfiq boole koog lu mu leen war a yóbbale ci ndimmal bu ñëwee ñu teg ko ci loxo coordination bi ni leen maa ko jàppe ci li ngeen di doxal at mu jot def na ko jox leen ko ñu sant ko bu baax a baax man lam yashkuri naas lam yashkuri Allah yonent bi moo ko wax te dañ ni woon Serigne Moustapha Mbacké radiallahu anhu ndax xam nga sànnoon mu ne ah xaw ma leen de waaye ki nga xam ni su ma ko defalee du ko wax de su may lim samay noon ci moom lay jëkke soo xam na dëgg ñu sant itam si moom itam ba mu nekkee xalifa ba léegi at mu jot dana mu jox ndimbalam ma teg ko ci loxo waa coordination bi <coughs> sant ko ba tey jii jox na ma ko mag alxaji Malick Cissé Jingé Euh, ñu sant nag président de la république monsieur Macky Sall euh, at mu jot dafay gën a yaatal taxawaayam ci coordination bi dana teeru gan ñi seet biig ministre de l'intérieur la yabal mu teeru Mouhamad Tawfiq yóbbu dalal ko cee méridien ak ñi mu àndal ñépp tey jii ci ouverture yi mu yebal suñu mbokk mu baax mi Mouhamadul Mansour Sy di suñu mbokku deret ba noppi yàlla jox ko boobu cër mu di ministre du travail. di nit ku yiw ku ne xam na ko boole koog ay bokki ministre bu yabaloon kenn rek mu doy waaye ay ministre la yabal ak ay conseil technique pour ñu ñëw représenté ko bale ko ndimmalamit jox ko waa coordination bi kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant man lam yushkuri naa sa lam waxoon naa ko léegi yonent bee ko wax yonent bi nee na ku santul nit doo sant yàlla ndax kenn tàllalagul yàlla teg ca sa mbokku nit rek la lay booleel mu faj sa aajo sa mbokku nit moomu nag boo ko santul boo santee yàlla yàlla du ko nangu su ko defee kon ñu ngi koy nuyu moom itam di ko sargal euh, di ko teeru ak délégation bi mu àndal ñuy ay ministre euh, tudd te moo di ñu ni mbokki kër alxaaji Ahmad Baru Njegen ñoom ñëpp ñëw nañu teew fi nuyu alxaaji Rawaan Mbay président nuyu alxaaji Moussa Samb le grand imam nuyu mudirul mahadil islami bi Dakar di nuyu le grand sëriñ de Dakar Papa Diagne di nuyu délégation bi nga xam ni ñoo fi représenté suñu doom bu baax bala ca Ndar di imam Abdoulaye Cissé doomu alxaaji Madior Cissé di nuyu délégation bi jóge ci daayiratul kiram ju jóge itam nuyu itam délégation yi jóge ci président fédération yi ak dawairu tijaani fi Sénégal di nuyu mouvement Koskas di nuyu daayiratul muqtafina bi asaari al abai wal waaw moom la ministre bi doon junji def nañu journée culturelle bu am solo ci Tiwaawan bu yàggul mbooloo mu bari teewe ko ñu ñàkk itam suñu jàmbaat ja Ibrahima Mahmoud Diop mi nga xam ni ku nekk xamoon na taxawaayam ci xam-xam taxawaayam ci kër Baye Niass taxawaayam ci tariqa bi euh, tabaarakallaahu te loola ba léegi dañ koy dundal waaye duñ ko dindi moo tax ma yónni woon ci Cheikh Ahmed Tidiane yi ni ko naw yónnee ku remplacé Ibrahima Mahmoud Diop ci waxtaanu zawiya ba ca dakaar ndax duñ ci changé dara mu yebalal ñu abu Aboubacar Niang bi doon firi léegi li ministre des affaires religieuses du Maroc doon wax moo leen ko tekkil ah ñu ngi continuer toujours message bi di ci yee nit ñi parce que nit ñi itam booy seet léegi tariqa yi fo lañ ko jàppee ruq bu ne benn xale nga fa wut ay xale ñu wër ko ñuy wax yu kenn xamul te am na ci yoo xam ni tegul fenn nag waaw te man xam naa ci dara ndax dama ci gis koo xam ni kii daf doon def lu ne am ay ñu topp ci gànnaawoon muy bindi leetar di woote te man maa ko yar ba bés ma toog mu indi sept pages ay professeur ay ingénieur mu ne ma ñii samay taalibe lañ ma ko ah man de ci sama xel man de amaguma taalibe te maa la yar waaye sama xol rek laa ko wax ñeme wu ma ko ko wax wallahi alazim ñu jóg tuuti ni ma dama la soxla ci biir ma jóg ma dugg sama biir chambre à coucher mu ni ma coow li coow li kat ñaan gu ma weer abi te am nay taalibe ma ni ko waaw ah, waaw yow waaye ñi ko may na ba ñu topp sa gannaaw mu ni ma ah ñooñu de yaa xam nooy def ak ñoom <laughs> ah man ma xam ne loolu mën ma ko lijjanti ma may ko werd jox ko charte tariqa bi muy charte yu leer bu ko bàyyi boo ko jàppee ndax wóllëre la soo ko jàppee bul dem ziar beneen wëliyu bu bokk ci tariqa cheikh cheikh nee na du xeeb nitu yàlla du rëy ci man waaye sart la rek sama tariqa ku nekk sañ nga tëral say sart ni nangam kenn du ko def sama kër waaye bañ ko ci la jëlee def ni boo jàngee jeexatul kamal juróom-ñaari yoon rek wala fukki yoon ak ñaar mel na ni ziar nga wëli yu yëpp te beñuwaat buñ ko duyoo ndox ba mu fees boo ci sottee te ndox suufay màndi rek mu ni loolu laa ko waxee waaye ñemewuma xeeb benn nitu yàlla mun la bi boo ko jàppee na fonk si diine si julli juróom nan koy def di ko def ak laabu ndox di julli ci waxtu bu amul ngant di teewi ci jàkk soo ko jàppee doo si ñaari waajur danga leen di fonk danga leen di dimbali danga leen di jox dund danga leen jox càngaay dangay ngay toppatoo ñu dëkk soo ko jàppee bul jëfandikoo madd boobu ñu wax poon poon póon ñu koy tuxit xam ne ni jagu ndax bu ñu la séenee nëbb ko li ngay nëbb koy xam nga ni baaxul xam nga ni baaxul te dama ci gis benn boroom xam-xam bu nekk ca benn dëkk bu ñuy wax Samara deux cent trois kilomètres la digganteem ak Bagdad ma dem seeti ko ñu di ko Cheikh Ayoub mu ni ma ma ni ko loo xam ci madd bi que dama ko ni man li ma jaaxal su ma wàccee di añ si ci restaurant bi damay gis ay jullit yoo xam ni seen table dama cee fekk ay whisky ay champagne ay vin rouge vin blanc ma ni ko ñooñu ndax dafa am dëkk yu yàlla xaraamal sàngara ak dëkk yu ko mu ree ni ma fépp dañoo kàccoo rek ma ni ko bi des dafa am benn madd boo xam ne ñëpp koy jëfandikoo fii même atal ay imma yu daxinuun wa yashrabuuna duxaan dañuy tox maa ni ko te ma gis benn fatwa bu ci benn nitu yàlla def muy seedal xaaji Maalik sëñ Babacar Si moo ko laaj ni ko loo xam ci ilimaan joo xam ni dafay tox mu ah, su ko Malik xamee day du topp ci gannaaw ida alimtuhu qabla salaati la atbau waraaha su ma ko xamee lu jëkk julli gi duma topp ci gannaaw suma julee ba noppi doo koy xam uidu salaata abadan moom góor ga mu ni ma man mii de danaa koy jëfe mais yonent bi moo ko tere mun ma benn guddi ci Madina mu ma damay def at mu jot danaa dindi weer ci sama dund yóbbu ko Madina mu ni ma ngir raxas tilim tilim yi ak chargé waat batterie bi mu ni benn guddi nag ma def samay nawaafil ba sonn mu ni bu ñu tëjee jàkk ji damay génn ci biti bu ñu ubbee ma delluwaat mu ni benn guddi nag mu tëdd mu sonn def naa fi la sonn tëdd tuuti rek nelaw gëf ko mu ni foofu de la yonent bi ñëw wéq ma wéq bu metti ni ma bàyyil màdd bi ngay jëfe ci suma xadara fa innahu yusawidu l qalba dafay ñuulal xol mu ne ma sama yeewu ak sama bàyyi ñoo ànd waaw moo ni ko waaw mantam de dama gis suñu njiit yi fële ca Sénégal dañ koy tere man ko Cheikh Ahmed Tidiane itam ci tarixam daf ko tere mu ne ma moom moom koy tere nag moo aw yoon wax leen rek yooyu yëpp jànkonte nañoo moom ñu ngi janteeg ak yooyu léegi tubaab yooyu yëpp sax ñëw nañ ci jox Cheikh Ahmed Tidiane raison pour ni ko loolu pour ñu ni loolu man ngeen koo bàyyi su ko defee kon fa tabarakallahu mi ngi guddi te suñu gan gi day dellu lii rek ku indi avion spécial la ko euh, Sa Majesté le roi Mohammed jox pour mu ñëw fekk lii daal di dellu délégation bi ñoo fi des ànd ak ñun ci liggéey bi ndax ëllëg dana am ay conférence yu ñuy def ëllëg dana am ay conférence yu ñuy def yu ñu waxtaane euh, imam ratib bu Saint-Louis bi moo koy def ci Ahmed Tidiane Diallo mooy def conférence bi ku ko fekkee loo bëgg a laaj nga laaj ko ci tariqa bi ñuy invité waat ku mën a dellu si ëllëg nga dellu si bu ëllëgee ca ngoon lay jeex ñu waajaat wuti déwén muy bés boo xam ne nag ñun ñoo doon suñ cofeel ci Cheikh Ahmed Tidiane rek wa tashawquna ila tariqatihi cofeel gu ñu am ci tariqaam dañ daan def ay daje yu ndaw maxtaar jëng alxaaji maxtaar jëng ñenn yàlla dolli ko leer fa mu tëdd moo ci doon suñu kilifa ba benn bés rek mu ni ma waaw tey ñu def benn journée ci Ahmed Tidiane waay ma ni ko ayta man danaa ko financé ñu def ko benn bés mu réussir lool waa sikaab daal di ni dañuy def benn mais def ko taxte riayati saamiye li cheikh euh, Muntaga Ahmad ñu def ko mu réussir Muntaga Ahmad waxtaan fa waxtaan bu am solo waa rii onze def benn xam nga yëpp wolof rek boo toggee mu neex ku ne bëgg a togg <laughs> ci lañu xalaate ni waaw teñ ko def benn coordination coordination boobu ñu def ko taxta riayati samiya li saaxibil jalaala eh, Mouhamed Sani Hassan Sani ak eh, riayati samiya li président de la république du Sénégal eh, d'accord dama waxtaante ak ambassadeur bi mu dëgëral ñu coon ñu def ko Sa Majesté yónni fi benn délégation boobu léegi nag at mu jët mu yónnee délégation boole ci man-manam ba noppi nag dinu surveiller bu leen def nag daf ñuy jox déedéet daf ñuy waxtaan ak ñun dinu wax jaar leen fi ngeen war a jaar di ñu booleeg ministre bi bu ñu demee Maroc daf ñuy yóbbu këram gàtte ñu invité ñu ndogu waxtaan ak ñun loo xam yépp ci suñu suñu njëriñ lay dellu si ak njëriñu tariqa bi ci lañ tax ba coordination di ko def waaw mu ñu ñaan nag at mu jot bu ñu koy def bés bii ngeen ñëw teew fi xale yi ñëw teew fi ndax des na tuuti ñun dootuñu ko def xale yi ñoo koy def dañ leen di topp rek am na benn bu ñuy def ci ndar euh, mu lay Sall moo ko jiite boobu danaa dem fekke ko mësuma manqué benn woote bu Cheikh Ahmed Tidiane woote waaw ah su ko defee kon yéen itam ngeen bàyyi loolu xel ngeen fonk seen diine ngeen fonk tariqa bi ngeen fonk salaatul fatih ngeen fonk jawharatul kamal parce que wali yëpp cheikh la ko ci yàlla jox ñaari salaatu yooyu moo bi ko ko benn taalibeem laajee bu ci gën salaatul faatiha ak jawhar Muhammadul Mashri moo ko ko laaj cheikh ni ko ah dama defe nag jawharam ah, salaatul faatiha moo war a kawe ni ko ndax salaatul jawharatul kamal yonent bi moo ma ko dicté <laughs> moo ko dicté mu ne ko salaatul fatiha nag noonu rek la ma dikkee jóge ci xadara ba ñu dund bind ko ci page leer ñu kon defe naa ni mu gën a kawe waaye dem na cee dema dema dem ba Mouhamad Machi mi doon déglu dafa mujj neey waaw sëñ kër Si nag ba ko waajee laajee dafa jël leetar ba rek sama loxo ma jàng ko kusantu mbuuj la dëkk ca kaw loxo ma ne ko nee na bu ci gën a foor mu wëlbati paas bi ñu ko baxrun la saaxila lahu ñu ko géej gu amul tefes la weer dal rekk ni ma yónnee ko ko noonu la ko ko posté waat yónnee ko bu ko defee waaw الحزن والكتمان وهما الأساس لما ترى من نعمة عظمت

Eh, su ko defee la kon lii dafa mënoon ñàkk rek ndax ku ne li nga am soo ko wëccee rek am te lu la soof wala soo ko sàgganee looloo tax ñu bëgg ngeen bàyyi gën a bàyyi waat xel tariqa bi ngeen gën ko fonk ngeen xam du tariqa caaxaan ngeen xam ni du tariqa boo xam ni wuti nit wala propagande taxu ko jóg moom li ko tax a jóg rek mooy defar nit xanaa leen ni mooy hôpitalu ruux yi tariqa Cheikh Ahmed Tidiane mustashfa al arwaax wal axlaaq wal abdaan ba bëggee sa ruux set sell demal tariqa Cheikh boo bëggee si jikko jàkk demal ci tariqa cheikh ñu defal la su ko defee kon yéen ñi yàlla baaxee ngeen dugg ci ba noppi te muy njariñ bu fexe ba ñàkk yiw ba ci nekk su lañ leen ca sartal sart yooyu rek jëfe leen ko te wax naa bërki dem rek xale yi ca ndar def nañ fa daje jeunesse bu rëy ca ndar man leen léeg gis xale bu la ni yéege ma man jëm fan man leen fu ñu jëm man leen gis ngeen ku ci jël sa laazim ak sa wasif sa dikru asri yi ndax ñett yee rek am ci tariqa bi al wirdu laazim wal wazifatu al yawmiya wa dikru asri yawmi al jumaat sa laazim bi ngay def ñuy téeméeri li istixfaar téeméeri salaat téeméeri laa ilaaha illallaah wala al wasifatu yowmiya listixfaar bi sixati al xayyul qayyum fanweeri yoon salaatul fatiha juróom fukki yoon laa ilaha illa allah téeméeri yoon jawharatul kamal fukki yoon ak ñaar te dama mas a seeti benn kilifa ci tariqa bi mu nekkoon góor gu ma sopp nit ko xonq la woon itam mu ngi dëkkoon ci Mauritanie waaye yàlla daf ko may ci tariqa bi mu am kastu mu ñëw benn ngoon rek di ko seet si su ma saan gis daf may jël fóon ma ni ma sëtul xaaji Malick ñëwal toog fii sama wet waaye bi yoon ma ñëw rek mu caractère ma maa ngi wax ak moom faale ma ne waaye góor gi lu muy def nii ma dem ma man dem ngoon guddi ma ñëw jaaraat fa mu daal di ma séen rek daal ma dogale foon ma ne Abdou Aziz ma ni ko waaw yaa Cheikh man danga ma jaaxal naa fi faale woo mun ma mel na ma lay faale maa ngi jàngi Jawharatul Kamal yonent beeg Cheikh teew ma lay faale ndeysaan yeneen bi moom ma fóonaat loxo ba bu baax loxoom bi ma jox ma fóonaat ko waaw ma ne ko am ah, man def woon naa ni buñ koy jàng ca malaan mun ma téedéet foo ko jàng te mu sàll rek danañ bàcc sa loolu ku ko am looy waxati lu dul mooy nag waaye nga di ko def it nañ la ko waxee te bañ koo yàq ci wax nag wax ndax wax dana yàq lu ne waaw wax dana yàq lu ne ngeen xam ni jaamoo tax ñu indi ko fi nag du par parloo du xëccoo du dara cheikh wutul tariqa moom daf doon wuti lu muy wuti rek cër bu mu gis la ci yàlla di ko wuti foofu dajeeg maa moom mu ne ko yow laa doon seet nag kaay kaay saa fiir jàppal ma njal xaal waaw ah daal di nag dama lay jox tariqa bi nga nga nga nga nga jëriñ ci doomu aadama yi mu ni ko nag waaw maa ngi koy man ci jox la samay condition yi ma ko mën a doxale soo ko nangoo ma doxala soo ko nangul ma bay la ak sa yëf nga seeti beneen wëliw te man ma continuer ci sama yoon mu wax ko condition yi mu d'accord yonent bi d'accord Seydi Hadji Maalik ne ne isqaaluna fi hijrihi min daak mais li tax ma bokk ca kat signature yonent bi daw ma xam ne garantie am na nag waaye bu loolu amul woon duma ca dugg waaw ngeen ma gisee ma dugg ci tariqa Cheikh sañ naa ber tariqa comme ñëpp am naa martaba am naa cër mu ne waaye su ma tariqa du jàng salatul fatiha duma jàng jawharatul kamal te salatul fatiha ak jawharatul kamal nag Malick du ko bàyyee kenn la mu saf ko ko ma ca ko xam alors alors waaw moo ni mu la ko ci bol mu ni bi ci signature yent bi daw rek mu xam ne am na garantie amoo oto bu amul garantie dugg ci wóoru oto bu amul assurance dugg ci wóoru ah te bu cheikh nag am na assurance ndax yonente bi nangu na si ba nga ko nee rek lii mooy su may sóor yi ma la koy mën a doxale muy fan muy euh, ñaar fukki charte ak ñett condition yii laa ko mën a doxale mu ne ko d'accord waaw si xaaj maa ngi ni ba yonente mee d'accord rek laa ci wóolu dugg nag ndax gan maa ne am na yoo demee nag kon tabarakallahu ngeen moom ko mag ñi xeex ba indil leen ko lu ne ñu daj ko indi ko fii yar nu ci liñ nu yar diine ju sell guddeeg bëccëg suba ngoon naasiral xaq bil xaq zabaayaa yi wesaaroo te moo ko ñaan ca makk ba mu demee la ni yàlla ñetti rek laa lay ñaan bu jëkk bi moo di cër boo may jox dencal ma ko ba suba bu ma ko jox ci àdduna bu kenn xam may kan bi ko ñaanaleel mu ni ko néeg yu ñu lay jaamoo yal na bari ca Sénégal te ma bokk ca bi mu ni ko yal na nga ma jox pàkk bu lew ma di ca tuur sama ñaq di ko dunde te bañ dunde ñaqu taalibe yi moo tax sëriñu tijaan du am ci taalibe tijaan pikki di moo doo ko ñaan ba taawul tijaan duñ joxe ah. moo tax sëñ tijaan bu ñu liggéeyoon dañu <laughs> dafa ñu dem bay wala ñu def leneen waaye di leen liggéeyal di leen jox moo doo ko ñaan doo ko ñaan ca makk ne yàlla nangul na ko ko <laughs> <laughs> lu ko defee loolu tax sëriñu tijaan lu mu am bokk ak taalibe waaye ñemewul laaj benn taalibe nag wala koo ci defet def nga lu ñu la santul la la lu ko defee nag kon ñu ko bokk ko seq rek di ca jaamu yàlla di ca wut cër pour dem nag xam nga léeg-léeg yow taalibe bi nga am lu su sëriñ amul hmm. bés bu ne bés am ci barki sëriñam lu sëriñ ba amul hmm. bis bu ne taalibi am ci barke Cheikh Ahmed Tijani la sëriñ ba ko jox tariixa bi amul waaw loolu nag kon du ngeen ko am ba noppi nag di négliger loo xam ne li kenn du ko négliger xanaa yomb gi rek moo tax ma demee nag kon ñu gërëm ñëpp ci seen teewaay muqaddam yi imaam yi imaamu zawaaya yi imaamul jawaami'a wal masajid ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm te di leen ñaax ci seen biir jàkka yi ñu nekk ay missionnaire di waxtaan ak nit ñi ci li leen di jëriñ ci seen diine di leen rappeler li nga xam ni mooy condition doxal tariqa bi ñu mban ca bàyyi xel ba bu ëllëgee dara duñu bett ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jotool nuyoo xalifa bi Cheikh Ahmed Tijani euh, yéen ñëpp mu ngi leen nuyu di leen ziar li ma wax rekk lu gàtt la euh, toogal déglu ma lu xew nga renseigné ma ca te ngeen dimbale ma yéen ñëpp ci ñëpp nekk benn waaw ngeen ma dimbale ci ñëpp nekk benn te moom la doxale itam yàlla xam na noonu lay doxale ba mu nekkee xalifa léegi am naa ci preuve yu bare bare ma defee na kon ah fa mu nekk nag ma nga fa génn gul ñëwagul waaye la ma waxoon rek ba Macky Sall yi ñëwee ni ma kuy seen xalif Sëñ Mansour nelaw ñu denc ko mu ñëw jaale si ni ma kuy xalifa bi ma ni ko yow <laughs> ah man lu ma ko wax bërki démb ma ni dañoo eh, tiit feebaru Ebola la xam Ebo Ebola Ebola moi ah, il m'a convoqué dans son bureau mu ni ma ñaan leen feebar bi ba dugg Sénégal ma ni ko eh, ñaan ma ko il y a treize de Sénégalais mais ñoom la yow la leen yàlla dénk yaay seen xale yaay seen président ma ni ko soo jàppee ba sell lal sa saajaada jublu penku yàlla dana ni ah ki ma dénk treize millions d'âmes yi ci Sénégal mi ngi mex ak man danaa ko déglu ba xam man ko soo ko ñaanee ni ko musalal waa Sénégal daf leen di musal ma ni ko am na benn juróom-ñaari baat yoo xam ne sëñ Babacar Si moo nu ko daan jox ci feebaru mbas su ñëbaan mu ne nañ koy jàng ci jàkk yi fatiha ba mu jeex nga jàng ya qaadiran ya muridan ya qaiman bi nafsihi hada maradun jadidun fakfina min basihi mu ni boo ko waxee juróom-ñaari yoon yéene ci sa njaboot gi ko mënula jàng yàlla mën na def feebar ba du yegsi ci yow wala bu yegsee du du la gaañ ma ne ko enregistré ko mu enregistré ko man ko répété ko mu répété ko man ko boo ko répété dix fois da koy mokkal su ëllëgee boo xëyee rek lal sa saajaat yàlla la dénk waa Sénégal nga ne ko yàlla yaaw Sénégal yooyu nga ma dénk nag maa ngi lay ñaan nga musal leen ci Ebola su ko demee nag kon noonu rek la eh, yàlla du dénk nit eh, lu day réew te du ko déglooti nag manul nag man ko ba jullee rek jàll ko boo ko jàngee yàlla de ci musul waa Sénégal a yow la yàlla dénk waa Sénégal waaw la su ko defee nag kon ngeen bàyyi loolu xel ngeen bàyyi diine xel parce que nit amul lu ëpp diine diine dafa foor dafa kawe nit ñi ñoo ko waxatul nit ñi rek di xuloog di tëggante sëriñ ak diwee sama sëriñ moo man diw diwee sama sëriñ diw ko man waaw loo ci xam yow xamoo ci tus kon kay jàppal ki nga jàppale gëm ko nag te bañ a gënee la keneen loolu amul solo loolu war nañ ko bay par parloo ci sëriñ non c'est pas normal boo defee nag kon ñu ziar ñëpp mais bàyyi loo leen xel li ñu bokk muy tarixa Cheikh Ahmed ak képp kuñ ko bokkal bàyyi leen xel itam li ñu bokk muy diine lislaam gis ngeen àdduna bi léegi ni mu rëbe fu nekk benn groupe ba nga fa di def lu la neex di woote di rendi nit ñi di leen fetal di yàq seen xel di leen tiital waaw yoo xam ne yaa nga tëdd ci sa kaw lal di nelaw waaye am na xam ne talatuñ ko fi mu nekk waaw loolu yëpp nag yaa ngeen koy bàyyi xel tabaarakallaahu te bis bii ñu di leen ñaan benn yoon la paraat Cheikh Ahmed Tidiane ko moom ñun ñëpp Cheikh mooy sunu sëriñ amul benn kër ci Sénégal këru tariqa bi nga taxaw ni Cheikh Ahmed Tidiane yi moom laa yaakaar waaye liñ ko tuddee awma ca soxla ko kenn ñeme ko wax kon nag bu jotee ñëw leen teew fii fekk li teeru gan yu tedd yi ndax gan gu day ni Saali yabal ko jox ko avion spécial Mouhamadou Sadis jox ko avion spécial maanaam une délégation président de la République désigné beneen délégation boole ca loolu dafa war a rëy ci ñun ba ñu tatagal leen tatagal bi war ci ñoom nga defee na kon ñu ñuy gërëm ñëpp taalibu tijaan yëpp këru tijaan yëpp suñu kër sini kër Cheikh Oumar ñu ngi teew Cerno Makki Cerno Madani moom la yebal ak Cerno Yan Caam ku ne xam na ko ci wàll wetu Cerno Muntaga euh, waa kër Alxaaji Ahmed Ndiéguène waa kër Madior Cissé ñooñu ñëpp tijaan la ñoo ko bokk ah nga defee kon ñu yemale foofu wax ji eh, yàlla ñu fi daje déwén te yàlla na déwén dàqale e, suñu njiit yi li ñuy yóotu yàlla nañ ci jot moo xam suñu njiitu àdduna yi la moo xam suñu njiitu diine yi la ñoom ñëpp kenn ku ne am nga sa projet pour sa réew pour sa diine pour sa tariqa ñoom ñëpp nañ leen ci yàlla jotal te mu ànd ak jàmm yàlla def ci réew mi jàmm yàlla def fi sutura euh, dolli xéewal yi di leen digal bu leen toog rek croiser les bras surtout les jeunes na ngeen dem wuti liggéey bay bay ci àll bi bu leen toog nit ñi jël suuf si bàyyi leen dem leen ngeen bay ngeen ami tool ñu am autosuffisance ci ceeb léegi dootuñu ko jëli fenn te mën na am ñun ñu ngi ci lool ñun ñu ngi ci loolu ñu ngi bay ceeb ñu ngi bay puloox ñu ngi bay gerte ñu ngi bay dugub ñu ngi ci loolu yépp man yooyu yëpp man maa ngi koy bay yéen tam ngeen dellu ci mbay ba ba ngeen gis leneen du tane mbay waaye toog rek di pexe di dunde pexe di dunde wóorul liggéey dunde moo wóor waaye pexe dunde wóorul moo tax na ngeen dem ci àll bi ñu ngi séddale ay suuf fu nekk mais doo gis kenn ci njabootu tarixa bi dem ñaani ci da toog fii ci Dakar rek dem leen ñaan ci su ngeen ko bay ngeen jox ko seeni doom ñu bay ko léegi bu ñu yëpp ñu d'accord bay benn at mën nañu am autosuffisance li ci fëlew bi ci ci ndox li ci Transgambie bi ci ndox man bu ci ne dem naa ci ànd ak samay xaritu tubaab ñu seeti la fa nekk ak lu ñu fa war a mën a def mais mën nañ fa def lu nekk loolu nag yéen itam bu leen toog rek croiser les bras bokku leen ci wuti leen i tool mbay léegi metteetul jafeetul soo amee matériel man nga dem gi ngeen nawet bi ren dafa te yéex a ñëw teel a wàcc mais am na barke damay xool tool yi bërki démb gis man li ma am ci dugub masuma ko am te temps sama dugub daal laay lekk ba léegi ni jeexagul mais li ma am ren masuma ko am nga xam ni kon yàlla kenn du ko jàngal nawet yàgg na ko def ba defee dem leen ngeen dem wuti ci tool yi bay ngeen ci am le baan waaw waaye toog damay wut liggéey damay wut liggéey waaw ba te doo def dara di wut liggéey di ba faf nag ñàkk liggéey faf la ca fekk loolu amul njëriñ kon na ngeen góorgóorlu ngeen delluwaat organiser wu waxtaan ak ku leen man jàppale rek mu jàppale leen noonu la ñuy doxalee boo defee nag kon tabarakallahu loolu rek la xalifa bi ni woon naa ko boole ci waxtaan bi moom lu mu wax mi ngi bëgg nit ñi dem bay bay xam nga lu mu gis ci àll bi xanaa moo ko gis moo ko xam waaye mi ngi ñu ciy forcé mi ngi ñu ciy digal wax leen nit ñi ñu dem bay wax leen nit ñu dem wuti tool ci àll bi loolu nag yéen ñëpp ñu ngi leen ciy bàyyiloo xel eh, di leen massawu ci coono jamono al usru wal yusru ñoom rek ñoo fi nekk usru moom day gaale yusru nag toujours mi ngi fi moo yàlla ni inna ma al usri yusra inna maa al usri yusra ida faragta fansab wa ila rabbika fargab usru day gaal rek waaye du sax yusra toujours moom mi ngi fi yoo defe ne kon ngeen di ñaan dékk yàlla seen loxo lu mu fi wàcc ci ay diis diis rek bu jullit yëpp ñaanee yàlla mën na koo yëkkati ci façonam nga defe ne kon loolu rek la ñu amoon suñu leen di boole ci waxtaan wi di leen jaajëfal bu baax di dellu siwaat di jaajëfal le roi du Maroc di doomu ndeyu Sénégal ci lépp depuis des siècles Maroc ak Sénégal ñu ngi ànd te duñu teqali ko incha allah dañuy ànd daayiman ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bala ak di leen bala salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi nee na ngeen daal la wax léegi. ku nekk jàng Fatiha. mu ne nag kenn ku nekk jàng Fatiha. jàng salaatal Fatiha ñetti yoon. ñu jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadiya sëriñ bi nee na ñu dugal ci suñu soxla yépp yàlla mën na koo faj ci mbaaxam ak yërmandeem mun ñu yéene itam ci ñaan bi roi du Maroc la mu bëgg ci réewam yépp ci ay projet yàlla na ko ko yàlla defal mottalil ko ko la mu fa bëggul ci ay yàq-yàq yépp yàlla na ko ko yàlla fànqal defal ko lu ëpp léew mu defaloon way juróom yu baax ya dem nee na ñu ñaan rek ñu ko ci boole ñu ñaanal nag sunu buuru réew waaye nag ñu boole leen ko ñoom war a tabarakallah ndax ñaari doomi ndey lañu ñaari déggoo lañu ci programme seen programme benn la bi ci gën a am solo mooy dundal mbay ci sunu réew yi sëriñ bi nag nee na loolu nag kon mu ngi noonu ñun ñëpp fa tabaarakallaahu ñu ànd jàng faatiha jàng salaatal faatixi ñetti yoon ñu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiya dugal ci nag sunu soxla yépp nag ak soxla roi Mohammed VI ak soxla président de la république ak mbooleem njaboot alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin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 inna yëg ne ni Cheikh te nee na ma daañuy yëg ne ni Cheikh te nee na ma réew mi yëg ne ni Cheikh te nee na ma ci góor yàlla yu góor ya fa mun taa xawla Cheikh yi bay bu fa tawal mooy yu wóor yaa yëg ne ni Cheikh te nee na ma ci góor yàlla yu góor ya fa mun taa xawla Cheikh yi تبتوى الغيب دعك منتقل بيب فتوى الغيب ذو به إن أردتم سين برم أقلقي يا مين سنجي دقوم تقولي gaañi mooy leen ci Cheikh yow li mooy leen ci Cheikh loxo ca kaw mooy leen ci Cheikh gane mooy leen ci Cheikh bu ngeen bëggee mooy borom ak liggéey yaa mooy leen ci Cheikh bu ngeen bëggee gis borom ak liggéey yaa mooy leen ci Cheikh bu ngeen bëggee gis borom ak liggéey yaa ala nabi Muhammad xéwal gu sax ak musal yaa ka alun wa saxbun muy wéy di wéy am ngërëm yaa